Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillah muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi din mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waa sénégal yépp maa ngi leen di nuyu leen ziyaar bu baax fa tabaarakallaahu di eh, présenté wu rek ñu ngi tudd Oustaz Babacar Ndiaye eh, dëkk fii ci réew mi ñu am benn sit boo xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi tudd eh, Salam Vision fa tabaarakallaahu ñu bëgg cee jàllale ay émission yoo xam ne lépp loo xam ne réer na leen ci seen wàllu diine incha allahu taala su ngeen ko fu dugalee rek da ngeen ci am lépp loo xam ne lu ngeen ca bëgg a xam la ndax it nag eh, eh, yàlla dafa wax ci alquran ne su ngeen demee ba xamu leen na ngeen laaj ñi xam waxuñu nag xam nanu waaye mën nañoo eh, ñab ñabi fa tabarakallahu ba échangeante ak yéen ci seen wàllu diine ñu jéem a laayante biir ndax diine moom li ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax rekk la mooy laayante biir yàlla suñu borom wax ne fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamuuna su ngeen nekkee doon ay jëmm yoo xam ne xamu leen yàlla nee na ngeen laaj ñi nga xam ne ñooy ñu xam fa tabaarakallaahu kon diine jii di lislaam ñu nekk nañu xam ne diiney xam la du diiney làmbatu muy mboolem yi nga xam ne tey ñoo nekk ci biir diine ji muy koor muy julli muy aj makka muy azaka lu mu ci mënti doon lu ne rek lay njëlbéen ga la nga xam ne mooy base ba di socle ba mooy d'abord nga xam li nga xam ne noonu nga koy defee bu ñu jëlee exemple tey li nga xam ne mooy julli exemple tey julli am na ay farataam am na ay sunnaam am na ay yuñ ca sopp yoo xam ne nii sooy julli te xamoo yooyu yépp amaani soo defoon erreur ci biir julli tey la koy réparer doo ko xam nangay def mooy tàmbaliwaat à zéro te bu boobaa coono lay jural jullit bi bu fekkee na koor la it kazalik noonu rek lay tëddee tey am na yoo xam ne bu la ca dalee am na noo xam ne noonu nga ko war a defaree am na yoo xam ne soo ko defee tey day waral nga woor ñaari weer yu tegaloo am na yoo xam ne sula la dalee benn fan nga koy fay am na yoo xam ne su la dalee ngir yi wuute ci am ñoo xam ne dañ ne da fay am na ñoo xam ne dañ ne duñu fay mu mel ni aj màkk it noonu rek la tëddee moo tax diine jii di diine lislaam li nga xam ne mooy base bi di socle mooy d'abord foog nga xam moo tax yàlla ne ñi nga xam ne ñooy ñi ma gën a ragal mooy ñi ma xam man yàlla parce que mbir soo ko xamul léeg-léeg doo ko bàyyi xel waaye ko xam yàlla rek bàyyi ko xel innama yaxsha allah min ibadi al ulama ñi nga xam ne ñoo gën a ragal yàlla ci kaw suuf mooy ñi ko xam ndax soo xamul lenn ca laa ah doo mën a bàyyi xel loola ah, moo tax mbir bala nga ko bàyyi xel rek foog nga xam ko d'abord moo tax yàlla ne foog ngeen xam ma bala ngeen maa jaam képp koo xam ne yaa ngi dund ci kaw suuf di julli di woor di jaamu yàlla aveuglément te xamoo noo koy jaamoo na nga xam ne daal dëgg-dëgg la ngay def xamal ne ci ak réer rek nga ko teg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne képp koo xam ne soobu nga yoonu gëstu ji xam-xam ne la biir ne day soobu nga yoonu aljanna ku soobu yoonu gëstu xam-xam soobu nga yoonu aljanna moo tax mu ne yi al ulamaau warasatul anbiya na ngeen xam ne ñi nga xam ne ñooy ñi xam ñooy ñi nga xam ne ñooy wuutu yonent yi maanaam yonent yi ñi leen wuti ci kaw suuf doon seeni représentant mooy ñi nga xam ne ñooy ñi xam moo tax xam-xam mooy base bi mooy base yu lépp lu mënti doon yàlla nag mooy xamal nit moo tax yàlla ne su ngeen ma ragalee dinaa leen xamal kon xam-xam du aju rek ci jàngi téere yi yi moom man nga am culture général xam-xam la gaa waaye xam-xam bi wóor mooy bi nga xam ne yàlla nee na su ngeen ma ragalee rek ma xamal leen wattaqullah wa yuallimukumullah loolu yàlla ko wax nangeen ma ragal su ngeen ma ragalee man yàlla maa leen di xamal te xam-xam boobu nag ndax nit ñi seen xam-xam dafa wóote dafa am ñoo xam ne nii tey seen xalaatin iblis bi muy wax ak yàlla def ne ko sa gaañi dinaa leen dikkee ci seen ndeyjoor dinaa leen dikkee ci seen càmmooñ dinaa leen dikkee ci seen kanam dinaa leen dikkee ci seen ginnaaw waaye waxul benn yoon yàlla ko suuf moo tax yàlla ne sama gars yi nga xam ne ñoo ma ragal sama communication ak direct ak ñoom la fa tabarakallahu damay communiquer ñoom ma moo tax léeg-léeg nit wax dara ci wàllu xam-xam ñi koy dégg maanaam suñu amul lenn ci wàllu yàlla daanaka weddi seeni wax day yomb moo tax daal xam-xam mooy li nga xam ne mooy base bi moo tax bindkat ba ne dund goo xam ne nit da koy dund te xamul dara nee na loolu dund ak gàcce la waaw ah, loolu dund ak moo tax nit it lépp lu muy puukare woo ci kaw suuf bu doon alaw bu doon kër yu bari bu mu doon dara waaye na puukare woo xam-xam ak teggin ndax bindkat dana daal dëgg-dëgg naxnu naftaxiru bil ilmi wal adab ñun li ñuy puukare woo ci kaw suuf mooy xam-xam ak teggin moo tax xam-xam mooy baasu lépp lu mënti doon képp kuy dund ci suuf te jéemoo xam sa borom ni la bir ni ëllëg danga ko réccu ku dugg nag ci bàmmeel te xamoo sa borom ne la biir ne dugg googu ngay dugg ci bàmmeel it danga ko réccu kon nag xam yàlla xam ni koy jaamoom xam tey ponki julli ya xam ponki woor ya xam ponki aj ya xam ponki azaka yi moo gën nga dem ba yegg màkka te xamoo dara ci wàllu aj dem bay julli ne allahu akbar njàpp sax bu noo ko te jàpp pourtant mi gën a tuuti tey réew mi ñi ci bari boole laajoon tey lan mooy faratay njàpp ñu ci bari tey duñ la ko wax mbokk yi te doomu jullit dafa war a xam dëgg-dëgg nag lay gën a waxuma terre mais li nga xam ne moom la ab jullit war a njëkk xam mooy li koy laabal mooy tey sangu set mooy jàpp ndax kenn mënul jaamu yàlla te laaboo te setoo yàlla dafa laab te du nangu lu dul lu laab kon mbokk yi l'islam bii daal ñu bokk nekk maa ngi leen di xamal ne tabaarakallaahu lépp loo xam ne nit bëgg na ko xam ci wàllu diineem fa tabaarakallaahu euh, mën na balancer ay laajam ci wàllu diine moo xam julli la moo xam woor la moo xam azaka la moo xam yu mënti doon daal na ngeen xam ne pare nanu insha allahu taala pour weccoog ñeen suñuy xam-xam li ñu yàlla xamal ak ci wàllu diine ngir ñu bokk ko yéen lu mënti doon rek su ngeen dugalee seeni commentaire fa tabarakallahu danañ ko séddoo yéen danañ ci tontu ci Salam Vision wala tabarakallahu li nga xam ne mooy leeru diine 313 leeru diine 313 wala Salam Vision bu ngeen ci dugalee seeni laaj rek fa tabarakallahu danañ ci ànd ak yéen tontu leen moo xam ci lépp lu mënti doon ci loo xam ne nii tabarakallahu wàllu diine l'islam bi la ñuy bokk laayante ci biir ndax yonent bi lim ci wax diine laayante la kon daal na ngeen xam ne li tax ñu jóg ngir bëgg waxtaan ak waa réew mi yëpp waa Sénégal gi yëpp tey waa adduna bi yëpp ngir ngeen bàyyi xel lii nga xam ne moom lañ bëgg waxtaan ak yéen ndax réew mi fii mu toll adduna bi fii mu toll léegi kenn xamatul fan ngay taxaw kenn amatul repère te yàlla waxoon na ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana defal naa leen ci yonent bi muy seen référence na ngeen ko jël kon di roy ci moom te yonent bi kat kenn mënu koo roy te xamoo ko moo tax léeg-léeg nit wax ne sax gàmmu yeeg yooyu te nañ ko bàyyi mën a déedéet kenn du bàyyi gàmm yi ndax buñ bëggee xam jikko yonent bi foog nu waxtaanal ko nit ñi waaw te buñ ko waxtaanul nit ñi duñ mën a roy yonent bi buñ ne yonent bi ku tabe woon la ci nan comme yee d'exemple lañ mën a mën a mën a joxe ci tabu yonent bi buñ ne yonent bi ku mënoon jokk jokk mokk la ci nan nii rek déedéet da ngay joxe ay exemple yoo xam ne nii tabaarakallaa yuñ mën a làmb daj la lu yoon mën a gis ci téere yi buñ ne yeneen bi fa tabaarakallaahu ku mënoon nuyoo la ku amoon aajo la ci nan ak nan la ko wanee ci ak dundam kon durant ces soixante trois ans yu mu dund yëpp quarante ans fa tabaarakallaahu yàlla yónni ko treize ans makkatal mukarrama dix ans madinatul munawwara wa jima ashrata aman fi quraysha sawa munadin qawmahu waaye wal qawmu fi l harami yonent bi nekk ñoom ca Makka di leen woo waaye Madina la mujjee rek ñoo ko mujjee tëral moom sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbokk su ngeen bëggee xam daal dëgg-dëgg yi nga xam ne ñoo cay toppi te gën a ami solo doon ay waxtaan yoo xam ne nii yépp rek ci suñu diine islam bi ngir réew mi gën a xam kenn ku ci ne fi ngay teg sa tànk ñu xam ne daal amuñu kenn koo xam ne ëpp na suñu waa ji tabaarakallaahu di yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla ñu ko yónnee te nee na du wax mukk ci bànneexu boppam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuhaa lu mu wax rek man yàlla man maa ko ko waxloo waaye du waxi ci bàkkanam lu leen indi na ngeen ko jàpp te xam ne man maa ko ko leen tere na ngeen ko bàyyi te xam ne man yàlla man ko tere kon yonent bi def nañu gis wax nañu dégg bàyyil nañu fi lépp lu mënti doon ngir ñu xam ko kon nag léeg-léegit yéen mbokk yi na ngeen jéem a xam seen wàllu diine ndax jaamu yàlla day ah mënul tege lu dul ci ak xam mënul tege dul ci ak xam ku xamul doo mën a jaamu yàlla mag yi dem nañ ba yegg ci ne ku julli sax te xàmmee wala cay farata ak la cay sunna sa julli gi baax moo tax foog nga xàmme nit ki xam lay farata ak lay sunna ak la ñu sopp ak ya ñu sib yépp ya nga xam ne fa tabaarakallaahu dañ koy def ci wàllu diine ji kon daal mbokk yi fa tabarakallahu njëlbeen gaa ngi noonu j'invite tout le monde euh, tout le monde ñëpp na laa invité nañu bàyyi xel bu baax fa tabarakallahu site bii fa tabarakallahu bi euh, Salam Vision leeru diine 313 lépp lu ngeen jot ku ci jot na nga fexe nag fa tabarakallahu sa morom jot ca te ngeen xam ne lu ngeen bëgg xam seen wàllu diine daal dëgg-dëgg lépp dana leer fii lépp dana leer fii incha allahu taala lu mënti doon muy seen wàllu sëy yéen soxna yi surtout nga xam ne yéen la àndal ci seen wàllu sëy yi ci wàllu sangu set ci soxna yi fa tabaarakalaaw gis ya ngeen di gis ci weer wu ne yooyu yëpp lu leen ci ump rek na ngeen xam ne su ngeen ko bëggee xam daal Salam Vision ngoog leeru diine 313 ngoog kon su ngeen ñëwee daal dëgg-dëgg da ngeen xam lépp la ngeen ca bëgg a xam kon nag yal na yàlla sàmm réew mi na yàlla aar réew mi réew mi na fi yàlla def jàmm ñu ngi nuyu mbooleen kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp. di leen tàggu ci lépp lu ñuy def ak mboolem kilifa aada yi nekk ci réew mi tabarakallahu kilifa diine yi du ñu lim waaye mën nañ cee tànn ñen ñaar wala ñett rek di nuyu bu baax fa tabarakallahu sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne tey moo fi toogal kër Cheikhul Hadj Malick di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toogal tey tabarakallahu maamam Cheikhul Qadim di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy turux yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye di nuyu la président Macky Sall mi nga xam ne it fa tabaarakallaahu li Alaaji di doon wax ne am réew daal boo ci nekkee wala gaal boo ci duggee bul ñaan yàlla mucc ak sa ëmb waaye ñaanal gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee rek seen lépp mën naa mucc waaye bu gaal gi muccul booy ñaanal sa bopp rek bu gaal gi suuxee rek dangay ngay suux ànd ak moom kon daal dëgg-dëgg gis maa sant ñëpp fa tabaarakallaahu di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag nañu abonné tabaarakallaahu te laaj seeni laaj incha allahu lu ñu bëgg a xam rek ko xam ci wàllu diine ji kon maa ngi yemandee li foofu fa tabaarakallaahu di xamal daal ne xam-xam daal mooy cëslaay bi mooy base bi yàlla yàlla dolli sutura asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Bienvenue sur Salam Vision.